nataal ñaar fukk kër gaayu kirist dafa nekk kër gu fees ak bànneex ndaxte boroom kër gu góor bi day defal lépp lu baax te jub jabaram ak i njabootam te yàlla nee jëkkër daa bëgg jabaram te yàlla nee na tamit jabar ji daa a bëgg jëkkëram te jëkkëru gaayu kirist daa bëgg jabaram ndaxte jabaram feesul ak kàttan ni jëkkëram bu fekkee jabar ji ëmb na jëkkër ji da ko war a gën a jàppale te dimbale ko ci liggéey bi te jabar bu bokk ci njabootu yàlla dafa war a dimbali bu baax jëkkëram bu fekkee nit nee na ci gaay kirist yi la bokk daf ko war a dunde xalaat xalaat bu jub bu sell ci ay doomam di fexe mel ni yéesu ci biir njabootam di leen toppatoo te baax lool ci biir njabootam yéesu moo war a nekk sang bi ci biir kër gi te bu nit ñi gisee njaboot boobu dinañ ne njaboot bi niroowul ak yeneen ya